jërëjëf sëriñ Cheikhouna jërëjëf sëriñ Abdou Lahad jërëjëf sëriñ Abo Mbacké day mel ni laaj bu njëkk bi tontu na lépp muy kan mooy Cheikh Ibra Fati borom Daarul Muxti tàmbaleel nga nu ko ci njëlbeenu feeñam ba ñëw ci bis bi ko sunu borom moom loolu nag li muy tegtale ci ni mu ñu résumé dunduk Cheikh Ibrahima dafay tax ñu man caa jël ay bànqaas yu yaatoo yaatu defe naa ñiy def plan ci dara bu ñu defee étude ah day des nag ci ñi asesec bi <laughs> ñu yaatal li ci des waaye waaye waaye day mel ni daal maquette bi moom mat na ci man huwa Cheikh Ibrahima waaw waaw kon nag waaw jaamia léegi nag li ciy des kon mooy mhm. euh, jëmmi mhm. euh, bànqaas yooyu nag nuñ ko mën a waxtaanee mhm. nga wax ko digganteem ak ku tedd ki Cheikhul Khadim euh, wax ngeen ci ak bokkam wax ngeen ci lépp waaye damay wax ne borom daarul Muxti day ñaanu sëriñ bi gu nungu te nungoo ci moom ndax ginnaaw ñaanoon na yàlla koo xam ne day bokk ci askanu maam ñaan gi nangu ndax la ko way juróom sëriñ Mor Sëriñ waxoon santal yàlla ki yor yan ba nga xam ne seeni mbir dafay nuroog mbirum yonent yàlla Muusa ak Haarun te sëñ Muusa ka misaal na ko nga xam ne bis bi borom daaru di feeñ dafay mel ni mi ngi tolloog sëñ Tuubaa di jàng suuratul xasas ba agsi ci waaqi haaruna wax soo mi ne lisaanan farsilu maa ngi dañu saddiqu ni inni kon loolu mel na ni maanaam tegtale diggante Seydina Moussa ak diggante Seydina Haaruna waaye diggante Seydina Ali ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam te Seyduna Aliyu dafa am portale bu ko Sëñ Tuubaa portale ci xasida ak raaya yam ca tudd yépp benn bu ci nekk noonu la boroom daru taxawee ci moom lahu shijaa wal irfaan mhm. ma sharafin wal xob mhm. <laughs> defe naa boo ko doon xalaat ci benn bu nekk noonu lay mel njàmbaru Seyduna Aliyu dëgër ga mm-hmm. fit wa xam-xam ba mm-hmm. wettali yonent bi salaa sallam jege gi lépp kadalika mooy borom daarul maat lahu shujaatu mm-hmm. ak njàmbaaram sëñ Tuubaa sax da ko seere nga xam ne waxoon na ko sëñ Modou Habib ca njaareem ne Cerno def fit bi daa wàcc ba ci doom yi kon loolu sëñ bee ko saxalal loolu sëñ Moussa ne mësula rët mësula tiit du jaaxle mësee fu ko kalaame borom moo baaxle te fitam woowu moo tax mën a topp sëñ Tuubaa ci njëlbeen ci xam li da yàlla def ci moom mu jox ko boppam ci lépp waaye fitam wu rëy woowu taxit Sëriñ Tuubaa tànnoon ko yabal ko mu dem ca kanam gouverneur général Mm-hmm. wane fa mat wane fa fit wane fa fulla mm-hmm. waaye fit waa waraloon it sëriñ bi dem bàyyi ko mu des yor njaboot gi Mouhamadou mm-hmm. Abdoulahi ne wax na ko ca Nuzhatu Nadim bi sëñ bi dogoo war a dem ka fi des di defar mbir yi mooy Cerno Ibrahim waaye kon xam-xam ba sëriñ bi jàngal ko te bu ko jàngalee téere ba mu xaaj danaan ko mbokk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 bokki sëñ Tuubaa yëpp a mag yëpp a ngande yëpp a rëy waaye nee na dëppoo nañ ci ne Ceerno ponkal ñoo ñëpp d'accord d'accord nañ lool bitti fex nga moom ñoo amul ku daw sëñ amul como waaye nag lakki na bitti ak ku barul nga xam ne mu amul ku ci discuter naan déedéet déedéet waaye ñëpp a d'accord ne Ceerno daal mooy ponkal bi moo tax sëñ Muntaxaa di wax ne borom daaru lu sëñ bi joxañ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 ak kere bu jamono jàppee ba mu ñëw daaru Muxti di ko ñaani fas genn kanam googu rek la ma ceer na xool nee na kon nee moo raw gaynde gu nekk ci digg mbat mu ne ay wax jul xay si yow mal judi bu tadira bu jamonoy tap ñëwee taw waame bu sotti kuy walwali wet gune la muy bari bari ndox ceer noo ko raw ceeg tap mu door a ñëw nen fa lasta talqaaw illa daafiham fi xam xaadiyan watara aw taaliyan suwara nee na doo dajeeg moom fenn foo ko séen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 مدحت عمي بمدح مخجل الدرر به أنال المنى والأمن من ضرر من لم يزل في الذي نراه مجتهدا فدهرنا عنده صف بلا كدر تالله تالله لو تالله لولاه لا نلفى ذوي أدب ولم نكن نحفظ القرآن في الصغر ay waay lii doy na tagg ah Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Khadimu Rasul nee na giñ naa ci yàlla bu dul loolu nag Ceerno Ibra Faty duñu làmbooy teggin duñ am man alxuraan du mokkal alxuraan mu ne kon kon kon loolu rek doyoon na ci réussir gi borom daaroon maxte réussir yaa am yaa cheikh ibrahima misluka fii jamail fadail laa yulfa min albachari ay sama baay bii sama baay tax sama sëriñ bii ku mel ni yow ci mboolem dajale ngëneel ak baax dee su ci gis ku mel ni yow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 tayle na li lépp moom Cheikh Ibrahima borom Daarul Muxti loola di mat dara yàquwul dara réerul soppikuwul li sëñ ci géej gi lépp borom daaru boole ko taxawaayam bi di fanaan cim saq di lalal njabootu sëriñ Tuubaa ci suuf yemu ca tubaab nañ kër borom ñetti yoon na Cheikh Madou bi xabbaan day ñëw defaraat mu ne ci googa tumuraanke ci googa wéet ci googa doxin ngir jox boppam Serigne Touba te mësta desal dara mësta am genn bëgg ak beneen melokaan moo tax gis nga waykat bi nee na xamala cheikh ibrahim lan taqila min xisalil qadimi xayri thiqaati nga xam ne ci do yanu bu diis yan bu diis la borom dëru yanu ci ci lan la ko yanoo mooy ci jikko yi ak melo yi Serigne Touba la la yanoo guddeem ba cëgam mu boole charia sëñ mu daw balla